buñ sukkandikoo ci maître Juan Branco doon kenn ci avocat yu layool Ousmane Sonko mi leader bu Pastef la ñu xamle moo di président Macky Sall daal dina def kémtalaay kàttanam ngir mën a jàkkaarloo ko kii di Joe Biden mi nga xam ne mooy président bu États-Unis waaye lu ni mel mujjuta antu buñ sukkandikoo ci ay kàddoom mu ne président américain bi dafa dal di lankal président Macky Sall bu Sénégal wàllum audience boobee gannaaw rek kon ba avocat bu Ousmane Sonko bi delloo di xamle ne wàllum ñàkk démocratie biram réewum Sénégal ak it bu bon bi nga xam président Macky Sall mu ngi koy doxal ak ni mu taxaw askanam lolé mo daal di tax njital rew bu États-Unis daal di ko gantal kon audience bobé nga xamné président Macky Sall annoncé won na dina am diggante ak ki di Joe Biden avocat bu Ousmane Sonko bi dellu di xamné ne kon Sénégal daanaka bari na ci ay rew yo xamné dañu ko dal di won ginnaaw jëm rek ci ñàkkum doxalin gi nga xamné régime bu fi nek mom la nek di amal ci déclaration mom maître Juan Branco mu né Macky Sall mi xamlé won né kon Joe Biden dina ko dal di dalal ci Maison Blanche lu ni mel di wul mujju am gan gannaaw rek ba nga xamee ne jéego yu bëri sax boo xam ne diplomatie bi def na ko ngir mën a fexe ba Joe Biden dalal Macky Sall waaye li nu mel mujjuta am buñ sukkandikoo ba tey ci Juan Branco la mu xamle moo di kon allié wu président Macky Sall ak Macky Sall ci boppam nañu xam ne réew yu bëri dinañu leen ko aaye ci kaw bu ñu continuer di fitnaal askanuk Sénégal teg ci kon di jàppay responsable ci anam boo xam ne dëppawul ak yoon ci njeextalu kàddoom moo maître Juan Branco mu ngi xamle ne mbooleem fonctionnaire mbaa magistrat sénégalais boo la Macky Sall di sante jëm ci note askan wi nga xamne ne mo ngi ñew di nga ko justice bu Sénégal ngir mëna indi ay leeraange jëm ci lolé gannaaw ba mu xamle ne ñom ñu ngi wëy rek di kolekte li nga xamne mo di ay élément de preuve manam rek mboolem lo xamne kon xabar la bu nu wara am jëm ci doxalin bu bon bi nga xamne Macky Sall ak régime am ñu ngi ko yamal ci kawasanu Sénégal ñu ngi wëy di ko dajalé ngir bés bu Macky Sall jéxalé ci nguruk Sénégal mom ak ñamu andalon di def jëfin ju bon ji ñu mëna jakarlo jàkkaarloog justice bu Sénégal ngir daal di mu na indi ay tontu naka noonu itam ay daan yu ñuy gàll seen ndodd jëm rek ci li nga xam ne moom la ñu doon teg ci kaw seen askan te mu doon loo xam ne dëppoowul ak yoon teg ci itam bu Sénégal mayewul benn njiit di ko am di ko jëmale ci kaw askanam